noonu la ko yéen kaay gir wàl fu ko tëjee xëy fësal leen itam loo xam yéen kaay gir wàl fu ko tëjee xëy fësal na ko te mooy jàpp gi nga xam ne ni ñu koy jàpp leen ci ay doomu aadama yéen kaay jàpp ne fu mu toll ni dignité humaine Euh, dañu nekk di ko bafoué euh, ndax simila xaa ñu jël dafa war a dakk noonu la ko yéen kaay di wàll fa côté ji xëy fësale tournée économique bi président Macky Sall di ci diwaanu Kédougou moom kon ci loolu xëy de fësal euh, leneen lu fës ci tribune waaw yéen kaay di la tribune xëyee dellusiwaat ci rébellion nga xam daal ñu koy nemeeku mu soxal am Amadou Ba yéen gi ne bés bu yàlla sàkk mbir dafay gën di takkarmaasi daaraam nee daal doon fay ci moom noonu la ko yéen euh, mhm. gi xëy fësale moom Déthié Fall nag nee na fu noppi na euh, matal na ay parrainage waaye du def comme nguur gi la nga xam moom la des li des daal na ko bàyyi bàyyi ko position bi ñu amul parrainage mën koo am noonu la ko yéen a kaay gii di l'info xëy fi Sëriñ Abdoulaye Seydina Omar Ba 24 heures a di 24 heures ne élection présidentielle 2024 yi ñu dëgmal parrainage fan la ci Déthié Fall tall toll fuñ ci toll mu ngi si yéen bi l'évidence lu ñu jukkil présidentielle ba tey 2024 Déthié Fall daanaka la nga xam dajal na ko ci parrainage toll na ci téeméeri junni yu teg ñaar fukk juróom-ñaar yu teg ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett ci wàllu parrain noonu la ko yéen kaay gi xëy moom Déthié Fall nag ndeenam ndem matal na du def ko bu nguur gi nekk ci ternaan dafay xëccoo la ci des daal a matal noonu la ko yéen kaay gi di lu nag doon lu metti gaay gars yi ba tax ñuy jàpp ne moom mii di Mbaye Dia Thiam lu mu def teg ko fenn moo tax gars yi jël dogal kon daal di koy ajandi noonu la ko yéene kaay gi di l'évidence xëy ni ko fukki fan ak euh, bi lam ñu dikk Sendera Fall moom dana fas yéene taxaw ci tribunal correctionnel bu Dakar ni ki ñaar fukki fan ñaar ci weeru novembre lay doon avocat Ousmane Sonko ñoo ko yóbbu ci yoon li ko waral nag mooy dañ gis ne ne moom en tant que fonctionnaire dafa def loo xam ne ni waru ko noonu la ko yéen kaay giir yor yor xëy jamono jooju la yor yor moom ma ngay delloo njukkal kii di Pape Sané mi nga xam ne ko jébal procureur daañu ko déféré euh, gi nag ma ngi koy delloo njukkal di wane ak jàppale li nga xam ñu ngi koy jàppale kii di Pape Sané noonu la ko yéen kaay gi di yor yor xëy fësale sursa lum ñu dikkee yéen kaay gii di sursa xëyee dellusiwaat ci Ousmane Sonko mi nga xam ne ni dafa delluwaat kaso yéen kaay ni mel noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale ndax nekkam fu la ci pavillon ak ñaari soxnaam euh, mhm. yeneen kaay gi source ak xëy dafa xëy dara El laa di gi dox ci diggante suñu naatangoo yi moom nag wax na ci ponk yu bari lépp kon mu ngi ci yéen kaay gi source ak la man daal am ñëw jukkil waaw transfert Ousmane Sonko fële ci Cap manuel kii di Ciré Ciré Ciré Clédor doon kenn ci avocat Ousmane Sonko ma ngi yëkk ay kàddam di koy ñaawlu moom neen lu ni mel ko doon def war nañ ko koy yëgal ci një war nañ ko koy yëgal moom avocat yi noonu la ko yéene kaay xëy fësale président Macky Sall ma nga woon fële ci diwaanu Kédougou digg ne leen lu ci toll ak benn téeméer yàlla ci suñu koppar noonu la ko yéen kaay gi de la mandat xëy fësale le kaddu daa jëla noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale tournée économique président Macky Sall daanaka mu ngi nekk ci tànk yi tuk tukki tàggatoo euh, am na nag la nga xam ne digg na ko askanu diwaanu mu toll kon ci juróom benn téeméeri milliards lépp na fa seen jëm ci wàllu courant wàllu yoon wàllu ndox ak yeneen yu ni mel noonu la ko yéen kaay gi de la quotidien xëy fësale le soleil lam ñëw ci yoon wi jógee Mako Kédougou mu Moussala loolu ci téeméer ak fanweer juróom benn kilomètre raay bi yeesalaat nañ ko aménagé nañu aussi yoon wi jógee Mbembu Xosanto Sabodola ak Kayang mhm. jëmmal fa ab grande mosquée Kédougou Salémata inauguré nañ ko yéen kaay gi ne neexul ba neex waaye Kédougou jafe-jafe yi nga xam ne ñu jànkonte ci wàllu yoon tey ji wàññi na noonu la ko yéen kaay gi di la Soleil xëy fi euh, Sud dee yéen gi Sud Quotidien dafa xëy ay dafa sol utali fële ci université Cheikh Anta bu Dakaaru mhm. nee bu fekkonte ne bu njëkkoon temple du savoir la jor wax maanaam barab boo xam ne fi daan def di fa xam-xam waaye tey ji neexul ba neexul waaye pëcc xool lay gën a nuru di war nag mooy dogal bi nga xam ne état bu Sénégal jël nañ ko wax ne dañuy tëj université bi su ko defee élèves yi di jàngee par internet waaye loolu waa SAES nee xel mënu ko dégg hmm. ba tax ñu saakuraat ci mboolem seen jàngalkat ñu dakkal loolu yi noonu la ko yéen a euh, stade la mu ah, suñu gaynde yi ñu ngi waaye euh, suñu lamb fu dafa xëy tey dañu xam ki nga xam moo di Siteu yéen kaay gi ne neexul ba neexul waaye ku populaire la maanaam ku yàlla may ku eh, siiw la daal phénomène la aussi en même temps nit la koo xam dafay provoqué mm-hmm. yéen kaay gi ne nees nag moo ko njëkk a feeñal